Euh, ñu war a waxtaanee tamit beneen ponk boo xamante ne immigration immigration clandestin bi nga xamante ne xam nga suñu ndaw réew yi commencé nañ jëlaat yoonu géej gi euh, te demoon nañ ba foogoon ne xam nga loolu maanaam daanaka jeex na si si si dëkk bi waaw tolluwaayu dëkk bi nag dafa xaw a doy waar xaw ma nag xam nga euh, sama gars yi lan lañ ci lan lañ xalaat ci côté boobu noonu xam nga parce que ci biir askan bi am na ñoo xamante ne peut-être ñu ngi gis ne situation yi booy yi xam nga nu mu demee moo tax foog mu demee noonu xam nga am na tamit ñoo xamante ne gis nañ ni lu mu métti métti tamit war nañ toog fii xam nga euh, bokk si ñuy développé seen dëkk waaw mais comme ñun ñooy jeunesse su Sénégal tamit xam nga bon ku nekk gisuma daal lan mooy lan moo tax ba xam nga en tant que ay jeunes waruñu mën a waxtaanee ci loolu ak lu sujet bi sensible sensible waaw xaw ma nag lan la ci sama sama sama sama gars yi xalaat waaw Ablaye. salaamaaleykum bokkal plateau bi salaamaaleykum waa Sénégal waaw comme li ngeen wax rek. Euh, tey ñu war a waxtaan ci benn sujet boo xamante ne ni dafa nekk sujet boo xamante ne sujet bu intéressant la boo xamante ne ni actuellement moom mooy sujet tabu au Sénégal te xoolal ça touche pas le Sénégal rek rek rek en particulier c'est un sujet boo xamante ne ni parce que ni ñuy gisee gars yi di demee immigration clandestine gars yi nu ñu koy demee fii biir Sénégal bu leen yaakaaree ne Sénégal liy jóge ci ci ci pays arabe yi du xaaj bi nga xamante ne moom mooy jóge Sénégal les gens passent partout pour entrer en Europe mais ñun man li li ma gën a intéressé moom mooy le cas particulier moom mooy le Sénégal man en tant que jeune man je ne peux pas concevoir malgré les difficultés de la vie dund bi métti lépp métti essient ay déggum la mais warul mun a warul mun a doon loo xamante ne ni essient ay déggum la benn influence boo xamante ne ni yow en tant que jeune essient ay déggum la nga ne yow da dem xaru ji parce que loolu xaru laa ko mën a tuddee parce que fii nii gis nañ fi ñoo xamante ne ni ñoo ñoo nekk ci situation yoo xamante ne moo gën a métti fuf fuuf fuuf fuuf ñi nga xamante ne ni ñoom ñoo jël gaal récolté nit ki nga xamante ne ni moom dafa dafa dafa ut ay système teg ay xel ba dajale benn montant bu toll ci 500000 wala benn montant bu toll ci 400000 essayé déglu la en un espace de temps pour dugg ci gaal yi dem kon kooku noonu moom bu développé woon loolu noonu yaakaar naa ne essayé dégg li muy dem dinaan da koy uti foofu noonu mën na ko développé propre business am fii nii. parce que man mënuma comprendre yow ngeen nekk ngeen nekk comme ngeen ñun ñëpp ñu nekkandoo biir Sénégal si yaa dégg yow mu leer na la ni yow parce que da ngay jël sujet bi mu affaire bi da ngay jël loo xamante ne def ko lu terre à terre yow looy dund lu métti métti métti métti métti yow leer na la leer yàlla boo génnee sa biir kër di nga gis koo xamante ne moom moo ngi dund lu gën a métti loolu fuuf fuuf fuuf ba pare muñ ko mais man gisuma lan mooy ndayu si yaa yow en tant que jeune nga war a mun a créer parce que loolu comme li ma leen wax sànq rek gis nga fii nii yow boo demee ba nga xamante ne ni yow dajale nga dajale nga valeur u 400000 wala valeur u 500000 essient déggum la mais loolu noonu nekkul da nga jékki-jékki rek mun a fërëx ñëw si yow déedéet loolu ay xel nga ko defee ay xel nga ko defee sa 400000 yooyu noonu mais gis nañ fi ñoo xamante ne dañ ko dem ay 100000 lañ commencé. dem di ko xam nga laay xam li nga wax dëgg la quoi am na fi nga xamante ne man dinaa fa ànd mais en général xam nga tamit benn affaire am quoi chaque mooy li ñuy wax soo nekkee sa dëkk mënoo fa am lu la neex xam la da ne benn mois nga man tout récemment yàggul dara toog naa benn gars boo xamante ne xam la agresseur la dañoo toog maa ngi ñu partagé dama ko ko wax ma ne ko booy lii amul sens li nga def nii di raal ñu lay jàpp amul sens xam la mais dafa ma taxaw mu ne ma booy xoolal maire fu mu dëkk maire am si benn barak la dëkk yaa ma dégg mu ne ma xoolal mbir fu mu dëgg ma am na moom façon job bu ne ut naa ko muy mënu ma am balaa cat bàyyi ma xaru xam la dama koy lijjanti quoi mu ma ko mënul lijjanti bàyyi ma xaru coow jiwu xam la boo du dañoo xaru xam la mais dañoo dem ba sës da nga des fois xam nga yow tey dëgg la quoi laay tey tey exemple tey yow yow mën nga ñàkk dara nga mun ko. beneen aspect bi am na si ñoo xamante ne seen yaay yi ñooy teggi ay nat di leen ko jox parce que am na ñoo xamante ne. dañuy dem ba am ay 30 mu suñu am 50 000 francs yu dajaloo seen loxo comprendre li mu la bëgg wax da si am ñoo xamante ne seen yaay yi ñooy teggi natt ñenn ñi tamit xam nga ay alalu miraas dañuy jël dajale ko dajale ko dem am na ñoo xamante ne marchand ambulant non non am na marchand ambulant yoo xamante ne tamit mooy loolu dañuy dem ba benn instant dañuy sonn si xam nga tey nga toog fii ñu yëkkati la suba ñu nga toog fii ñu yëkkati la xam nga nga dajale li ñu fi am yëpp xam nga takk dem mais dama la koo xamante ne ni yow dem nga majorité bi nga xamante ni dañoo génnee seen xaalis dañoo génnee plus de 600000 ñii nii ñu génnee plus de 500000 récemment rek am na benn émission bu ma doon seetaan ñoo xamante ni dañ leen teg deal parce que ay 500000 500000 lañ joxe woon valeur bu toll ci 2 millions ñu nax leen xam nga lekk lekk seen xaalis gars yi loolu la joxe gars dañuy joxe ay 300000 ñii di joxe ay 400000 ñii di joxe ay 500000 man loolu laa koo xamante ne ni yow dem nga ba nga xamante ne ni sa yaay teggil na la jox la ko pour nga demee si ay wala seen waa kër ñu ñu miiras ñu dajale jox la yow pour nga dem amoo lenn si loo mun a dem nga dem nga ngir nga demee gaal essient déggum la loolu naxee mbaay la loolu laa la wax ma ne xam nga même ma yeggali ma ne xam nga affaire yi lan la waroon koo xamante ne dem nga ba nga xamante ne yow am nga 500000 mais 500000 yow ah, man man personnellement 500000 te ni ma amee xalaat boobu noonu yow noonu nga amee xalaat boobu kii noonu la amee xalaat boobu man su ma demee ba jël 500000 nar ko paas si ay gaal ma développé sama propre fii lu nekk ngi fi mais mais mais yow mii yow mii nga ne yow da ngay dem dugg gaal yow kii di jaay kii di jaay ay calson wala yow kii nii di yenn mar mar kii di di marchandise di wër yow de gënoo ko. waaw ah, mais c'est que man d'accord naa ci li nga wax d'accord naa ci li nga wax de mais le problème en nekk man du ma du ma fustiger kenn ku dul l'état du Sénégal ndaxte tey problème am na jeunes yi ñu ngi dem en 2000 2007 gars yi commencé woon nañ doon doon dem ci taaw Ablaye Wade. tey jii ci temps Macky Sall dafa gën a dafa gën a am doole ak Covid bi nii nu mu ñëwee nii gars yi ñu ci baar yi dañoo perdre seen boulot perdre seen perdre seen alal commerçant yi ndaw yu doon taaba taaba sax yu ñu doon mënoon am pour di ko dundee amatuñ ko. léegi loolu dafa doon boo xamante ne problème boo xamante ne dafa accru léegi jeune yu bari dañuy préférer jël gaal yi naan dañuy dem. am na ñenn ñoo xamante ne d'accord duñ ci majeure partie am na ñoo jeunes yoo xamante ñu ne d'accord duñ ci ñoom duñ dem dañuy toog seen dëkk Sénégal liggéey fii mun fi am dara affaire noonu nañ leen ko nangul mais ñi xamante ne tamit dañoo am seen weccat ñu dajale ko mii mii tuuti ñu yaakaar ne bés bu ñu fi toogee 400000 600000 700000 800000 1 million 200 nga nar ko investir ci benn ci benn ci état ci ci l' état du Sénégal nga nar ko investir par exemple ci Sénégal est ce que fii ak 2 ans 3 mun na la garantir lépp loo xamante ne mun nga koo naroon a am fii nii nga ñàkkoon ko bañ am ëllëg fële ëllëg loolu mooy problème bi. c' est que man su fekkoon ne man garantie nañ ma ne 1 million 600 mille su ma ko tegoon fii sama état dina ma gunge dina ma accompagner dina ma permettre toutes les conditions nécessaires pour ma mun ci tedd di ci dim di ci dund di ci dundal samay waajur di ci dundal samay parents parents loolu loolu ñoom mun nañ mun nañ toog li nga wax ni mun naa ci mun naa ci d' accord mais loolu amut soo fi investir 200 000 600 000 400 000 soo fi investir leen permettre ñu mën a ñu mën a kii yan conditions par leen ci yenn ci yenn projet yoo xamante ne ne état bi moom moo booy ñoom ñoo koy xalaatal seen bopp nasal ko seen bopp fasal ko seen bopp état bi gunge leen ci ba pare créé leen benn environnement boo xamante ne benn zone boo xamante ne ci la booy di xam na moo waxoon benn zone boo xamante ne ay start-up la ñu waxoon ne ñoom lañ fay créé dañoo waroon créer benn zone boo xamante ne ne commerçant yi ndaw yi ci lañ mën a permettre ñu mën am dara di di fa liggéey di di fa tedd di fa teg ay projets yoo xamante ne état bi dina leen mën a accompagner mais tey jii loolu su amul jeune bi nga bàyyi ko ci biti mu jël 600000 400000 jëndee ko benn benn benn bal balu balu kii fëgg jaay wala balu wala ay ay fruits wala article genre yooyu noonu def ko ci kii bi marché bi am ambulant bi day gën di bari li ngeen war a am du da nga koy dundee depuis 400000 600000 c'est mine de rien puis on a pays pauvre lañ 25 pour cent de population bi ci Sénégal dañu am dañoo am benn situation boo xamante ne ne pour ñu lekk wala pour ñu dund problème la kon dañu war a xoolaat suñu mode mode de développement pour ñu mun cee génn. dama koy gën a dëggal ci ay pàcc gis nga état dimbali nit bi mais chaque jour population bi day xool lu mu gën a bëgg mu xañ ko ko yi nga tout récemment tout récemment xam nga dama am benn commerce boo xamante ne garage la nekk moo ñëw di jaay café Touba la doon jaay kaas fukki dërëm xam la jour dafa ñëw xoola Colobane la juge di wër kaas ba rond-point Liberté 6 ma ne ko bàyyi xanaa tey defaroo café mu ne problème kaas laa am xam la ñëpp xam kaas yi pour ñun ñoo koy utiliser ñun ñoo si naan café ñun ñaa si naan doog ñu jëlee nañu ko fi teguñu fi dara léegi waxatuma léegi waxatuma dootoo jaay café bi léegi yow au boo doon jaay café fukki dërëm te ku juróom nga koy jaay parce que kaas amul wala 100 francs nga koy jaay xam nga yow kooku déjà yow kooku xool léegi mu ngi commencé perte xam nga chaque jour day xool marchand ambulant bi yow da ngay xool koo xamante ne xam nga fu mu nekk fiable na mu ngi fee góorgóorlu mais la mooy des choses da nga koy encadré ñaata at Sénégal ñi ngi wax ci secteur informel ñaata at ñi ngi wax Sénégal secteur secteur informel lan la leen jox boobu léegi amul dara lu ñu leen jox boobu léegi dañ di daax rek dañ leen di daax mais defal nag bu ñu chaque jour booy ñëw ñu lay daax ñu lay daax mais bu yàggee nga ne non fii mun mënatum fi dëkk waa xam ut leen lu mu uti xam la parce que nga Sénégal nga Sénégal nga Sénégal Sénégal Sénégal donc dëgg benn affaire la benn affaire dëgg la quoi xam nga tey xam nga tey man tey man tey peut-être peut-être ñàkk espace ñàkk espace ñàkk xam la moo ko war benn affaire rek mooy problème koo gis mu koy def xam nga dafa dem benn mois dafa ñàkk espace bi dëkkam Moussa xoolal xam nga tey yow yaa ngi koy wax tey tey tey laa di de tey tey laa di de tey tey laa di de yow yaa yow yaa yow ne nga yow dëkk naar yi li ñu koy def ñoo ëpp Sénégal. waaw xam la te ñooñu ñu gën a développé ñooñu gën a stable. rawatina ñu ñi nga xam te ne amuñu stabilité. voilà léegi yow Moussa man xam nga lan laa la bëgg a faire comprendre. Mm-hmm. que ni yow comme ñun ñii nga xamante ne ni xam nga man personnellement loolu sama xel du ko mës a traversé pour man ma def ko malgré dund bu métti bi bi nga mën nañ dund dund bu métti life bi lu mu métti métti métti. essence déggum la mais foog gars yi comprendre benn affaire xam nga lan lañu war a comprendre à ce que yow bu dee da nga jël bato da nga jël gaal yi nii isient déggum la ñaari affaire moo la ci mën a fekk soit da ngay dee ci biir ndox bi wala nga yegg ba Espagne ñu refula la instant yi comme li amoon loolu noonu temps yu njëkk rek gars yi comme ñu comprendre loolu que ni instant yii nii yi nga xamante ne ni démb rek maa ngi déglu ay yoo xamante ne ni isient déggum la am na ñaari gaalu Sénégal yoo xamante ne ni teeroon nañ démb isient déggum la gars yi léegi noonu la ñuy def dañuy def appel ci président Afrique yi est déggum la président Afrique yi ñoom ñooy ñoom ñooy ñoom ñooy yónnee ay avion comme comme récemment le cas Mauritanie Mauritanie seen seen avion seen seen président bi moom moo yónnee moo tax gisoo ñu bëri ñi nga xamante ne dañoo demoon si gaal bi instant yi dañoo mere waa Mauritanie ndax léegi loolu la gars yi léegi duñ la bàyyeetuñ la gis nga foog ñu comprendre benn affaire gis nga Moussa espagnol yi wala italien yi wala français yi bu ñu soxlawee ay immigré isient déggum la nekkul noonu lañ koy defee gars yi di yéeg si gaal bi ñu leen di bàyyi ñuy dugg seen territoire déedéet dañuy dem ci dëkk bu nekk joxe fa ay quota comme waa Canada ni ñu koy defee quota yi dañ naan personnel nii lañ soxla dañoo soxla koo xamante ne dafa jàng ba am lii wala dañoo soxla koo xamante ne spécialiste la si lii wala dañoo soxla koo xamante ne ni lii la mais le fait que ne yow nga passé 500000. nga yéeg si gaal bi dem ba Espagne nga yaakaar na ne boo demee ba foofu noonu yow yegg nga Espagne ak yegg nga Espagne dañ lay jël dugal la wala comme temps yi ñu doon def yu njëkk ya wool bu dee am nga fi mbokk nga léegi loolu ça n'existe plus boo demee ba foofu gars dañ lay refoulé waat nga ñëw nga perte sa 500000 dund lu métti si géej bi minorité boobu nga xamante ne ni comme xam nga ñun duñ ko def di nga ne quatre-vingt-quinze pour cent de la population xalaatu ko mais parti bu ndaw boobu noonu di dem essient déggum la ñooñu lañ war a éveiller seen conscience xam ne ni essient déggum la loolu nekkul destination boo xamante ne moom moo gën a normal malgré les difficultés de la vie malgré les difficultés de la vie dund bi métti na ñun ñëpp xam nañu xam nga lan mooy problème bi xam nga dafa beneen problème boo xamante ne ñun suñu état yi booy ñu dem xam nga ko tenir xam nga mooy lan life bi li ci gën a cóol mooy jeune bu yaakaaram tas jeunesse boo xamante ne nga gis benn jeunesse génération lëmb boo xamante ne amatuñu yaakaar ci seen dëkk amatuñu yaakaar ci seen bopp tey jii nii yaakaar bi gën a ngande ci suñu jeunesse bi ñu gën a am mooy yaakaar yi gën a ngande yii la kaat yi kaat yi lañ ci yaakaar pour génn si suñu jeunesse su dëkk nga dem fubal am contrat te un million de joueurs kenn moo si am contrat wala nga dem jouer pari foot ñaan yàlla pari ticket bi gagné wala nga génn ñàkkante ko dem agressé bi comprendre li mu la bëgg wax wala nga jaar si gaal yi nga dem nga dem nga dem nga dem nga dem nga dem sori comprendre li mu la wax waaw may ma rek may ma rek may ma rek may ma rek may ma rek may ma rek ma expliqué may ma rek ma expliqué parce que bu ñu bu ñu duggee ci xam nga tey jii am na maanaam sujet bi dafa dafa sensible ba pare mais dafa yaatu de telle sorte que ni xam nga buntu yëpp ruq yëpp mënoo ko laal parce que boo jëlee kaw marchand ambulant yi balaa ngaa dem si marchand ambulant yi rek parce que du marchand ambulant yi kese ñooy dem étudiants yi sax ñu ngi dem étudiants yi nekk université Cheikh Anta Diop ñoo xamante ne ñoom ñooy suñu yaakaaru réew xam nga ñu ngi dem ci gaal lan moo tax ñuy dem si gaal yi xam nga li ma la ñaata at ñu ngi dégg problème yi université bi am comprendre ay jékki-jékki yow yow déjà xam nga biir université Cheikh Anta Diop ñu fay rey ay nit comprendre li mu la bëgg wax marchand ambulant dangay ngay jékki-jékki jël sa xaalis investir ko si benn kii jékki-jékki gars yi teg dil marché bi tàkk na xam nga li la nga génnee teg table di jaay nga jékki-jékki gars coolal nga am na benn gars bu doon déglu muy expliqué mu ne moom mool la mool la da doon napp si géej bi mbokkam yu bëri moo leen doon may ñu dundee mais ak licence de pêche yi gars joxe nii xam nga mun te ba pare gars yi di ko weddi mu ne ginnaaw gore bii nii rek boo fa demee di nga gis bato tubaab yi ñu ngi foofu di napp ñoom mënatuñoo am jël mu a ku doon maye boo demee ba war a ñaan day métti si yow te nit ki di nga toll benn moment boo xamante ne par exemple affaire yi nekkul ay damay yóbbu sama yaay màkk wala damay def lii wala damay def laa dafa am kenn ku ma mës a waxtaaneel koo xamante ne jigéen la mais mu ngi si naka sudul noonu comprendre lim la donte loolu amul excuse comprendre lim la bëgg a wax mais yaayam moo feebar ñu war ko dimbale dimbale ko ko comprendre di ko seetaan or benn ordonnance boo xamante ne vingt cinq mille xam nga ñu koy xool di koy xool ba yaayam gaañu papam nekk ci condition yooyu ñu koy xool di koy xool ba papam gaañu doomam feebar nee na du toog foofu gars yi di ko xool muy xool doomam ba doomam gaañu xam nga te dafa bëri man dem naa hôpital xam naa li fi nekk suñu plateau médical bi li fi nekk xam naa ko même boo amee xaalis doo si génn suñu coût santé même boo amee xaalis doo si génn comprendre li mu wax Sénégal rek ngay gis jékki-jékki dugg oto rek ñu ne paas yi yokku nañ ko jékki-jékki indi la facture courant yow doo comprendre affaire yi na la demee jënd crédit nga jékki ñu jël ko. nga lal taabal di jaay gaa yi ñëw dégarpir la xam nga da ngay dem ba benn instant boo xamante ne dootoo xamati looy def te léegi li gën a garaaw mooy xam nga li gën a garaaw mooy lii nii affaire boobu bu ko suñu état yi nangoo booy di dem ñu leen di jàpp di leen indi di nga gis koo xamante ne day xool benn kër bu rafet rek bu ñu xaw a ñu dugg fa rey waa kër gi yëpp jël li ñu am parce que mënuñu maanaam richesse yi nekk Sénégal yëpp xam xam la richesse yi nekk Sénégal yëpp xam nga benn groupe de personnes jàpp ko di ko séddoo seen biir kii bu lekkee ba doyal ñu xëcc wàccee jël keneen teg yow nga toog di ko xool gis ñoo xamante ne bu dee jàmbaar yaa leen gën a jàmbaar bu dee liggéey yow Ablaye ba nga juddoo ba léegi yaa ngi ñafe li nga liggéey bu ñu la ko fayoon dépassé nga fii musaa noonu man noonu keneen ak kenn élage noonu comme nan li nga gis ñoo xamante ne ba ñu juddoo ba léegi ñu ngi jaayante ñu ngi ñàkkante di liggéey soo demee ba mu wóor la ne Sénégal bi ñu nekk dañ koy wax sax liggéey joxeetu fi dara am jom am fulla ñan ñooy am xaalis ñii di fen ci tele yi fecckat yi ñooy am xaalis woykat yi comédiens yi comprendre la politiciens yi ñoom kese ñooy am xaalis maanaam tànk nekkuloo si caaxaan ak ñaan ak yalwaan ak tappale doo am xaalis comprendre la te dégg naa si benn gaayen boo xamante ne dafa wax benn wax boo xamante ne kenn mënu si dara waa ji si gaal bi la la dem biñ ko waxee bul dem si gaal yi kërëb kërëb risque bi dee la kërëb kërëb jàppal baay xam nga la wax mu ne yàlla ragalul di la xaar ba nga dugg mu lay door a rey bu la biir néeg la lay fekk rey te dafa am ñoo xamante ni li ñuy dund ñoom li ñuy dund yow dëkk boo xamante ne dañoo dañoo dem ba jeunesse bi ah da nga gis koo xamante ne waxuma la dugg gàlle day dem ba jàkkaarloo pale buntu grillage pale jël boppam sotti boppam essence taal ndax désespoir xam nga kon kooku ah dugg gaal moom moo gën a oyof si moom benn instant mu te booy yi ma gis nii détermination bi ñu am si gaal yi nii. oui vraiment lu leen ci munti fekk duñ ko bàyyi. loolu la c' est que man lu ma doon wax rek. c' est ñun ñun état ñun dañoo am am benn problème boo xamante ne c' est l' état du ko teg parce que toutes les conditions sont réunies pour ñun jeunes yi ñu mun ñu mun cee génn. béykat yi balaa ñoo jot seen semence mais mais mais on a on a un problème on a un problème d' organisation on a un problème on a un on a un problème de développement on a un problème d' différence bu am entre pauvre ak riche yaa amul amul différence amul décalage amul amul moyen moyen pauvre wala moyen riche amul y en a pas c'est que tu es pauvre soit tu riche léegi foofu lañ toll ba tam na tey yii ni coronavirus bi dafa dem ba accentuer laa la wax booy pauvreté buñ jëm nii fu mu toll nii dañoo dem ba benn instant amatuñ sax amatuñ sax luñ lekk état de survie lañ nekk c'est l'état du Sénégal état de survie lañ nekk fu mu toll nii la jeunesse day day souffrir mu ngi ci mu ngi ci ay coono mu ngi ci ay difficultés yoo xamante ne ne suñ suñ leen dimbalewul keroog waxoon naa ko fii ma ne nañ am nañ benn révolution boo xamante ne ne booy mu ñu ngi ci ñoom booy ku ci nekk sa xol sa dënn lu ci nekk ci biir mu ngi baax tey jii nii bés buñ ko continuerul ba jox leen ay conditions yu yu baax ñu mun cee génn